a moo tax de source a ne may ma ñëw jëruwut ñeenti yoon laa la wax nag jëruwut ñeenti yoon ngir bind ci Omar Gueye mi source a ne il n'y a même pas quatre chemins pour écrire qu'Omar Gueye s'est planté par rapport à l'inexistence juridique des villes du Sénégal ndax Omar Gueye mii ci wàllum yoon dafa bëgg a weddi dëgg-dëgg ci wàllum juridique lii di statut ville yi Dakar yi lii ma ne de moo taxit de ñu jàpp ne de bu ñu moytuwul sax de moom ci li màbbal bokk moom lii Touba ko weddi ba mu set wecc ndax code bi moo nangu dëgg-dëgg lu jëm ci lii di bokk moomeel yi di ville yi dañoo nekk entité territoriale ci bokk moomeel yi dëgg lañu bokk te dañoo amub dayoo am gëdd am ab sañ-sañ bu ñu sukkandikoo ci code bi mooy de ville bu Ndakaaru mënees na cee sax indi lenn luñ ci mën a boole luñ ci yokk loo xamante xëy na décret moo ko mën indi waaye lu dànk ni kaay jox kàddu Cerno Bokum de ma ne de Cerno Bokum ma ngay fàttali demee ci article 167 ba dafa joxe sañ-sañ dëgg ak taxawaay bokk moomel yi moom mooy wax de le soleil yéen kaay ne de loo ci mën di dégg mooy coow nar naa am de ndax nag jax-jax nar naa am Rufisque Thiès ak li nga xam ne moo di Ndakaaru bu ñu moytul musiba naaru laay dina am de giraawaal dina am de maa ne de moo taxit de Abdoulaye Diouf Sarr ci biir le quotidien yéen kaay ne dal leen waaye dal leen ci biir yéen kaay bi di le quotidien ne de suppression vidéo yi amul leen loo xamante ni jar na coow la ca ëpp solo nag mooy li nga xam ne moo di tur man dañ koy woowee rek appellation waaye la ca biir di continue bi lenn di ci soppeeku moo tax Diouf Sarr ci biir journal journal bi de ne loolee du cas pas un cas waaye moom de cas bi ko dal doy na waat de moom Abdoulaye Diouf Sarr mi yore santé bi cas yi mi ngi bëgg a doy waar laa la wax ci askan bi laa la wax ndax Covid bi fi mu nekk nii mi ngi yóbbu nit ñi jaxal na ma boo xoolee Covid bi ca Matam faat na fa doomu aadama te kookee la ko mucc bokk na ci ñàkk respiratoire artificiel aywa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ma ne de loolu moo ko teree laa la wax dund ndax manque respiratoire artificiel l'observateur ne de moo tax fi mu nekk nii li nga xam moo di faatu yi ñu ngi xool dafa mel ne luy takkar naase wal fu quotidien lim bi sax moo ngi nii lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay décès ci ay faatu am na ci covid 19 bi Sénégal loolee la ñu enregistré ci pandémie bi dañu bëgg a rey moo tax it de mbas moomee mooy yàqal waa Dakar bàyyi naa it de wàcc bi ñu bëggoon ci mbedd yi waaye covid baa fa jaar covid boobee du kenn de ku dul moom les éco yéen kaay ne fukk ak ñeent ci yoo xamante ni ñoom ñi ab doxum ñaxtu lañ bëgg di toogaani ñaxtu maanaam sitting ci li nga xamante moo di alxames ji baa musiba du leen ca kopparam yi di bëgg a naax say ma ne budget ba 2021 jeex na de ndar kepp nañ ko tey nag loo ci mën a dégg mooy junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett ci ay milliards la ñu fay ci bor gàlloo nañ ko de ma ab tur pax mu xóot moo xamit ndëgg sa loxo ci Sénégal am na liggéey de l'argentier de l'État bi yore koppar yi fi nekk nii de moo bëri de ma de juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn ci milliards ngir nag leb ci projet des na de ma ne téeméer ak juróom fukk ci milliards ngir na bi leb ci ay programme des na ñaar ci milliards ngir nag wàllum programme yeneen yoo xam dañ a guute de ma ne de Abdoulaye Daouda Diallo mii l'argentier de l'état bi ba du yóbbu Sénégal ci bor nag ci dette ma ne de ca jamono ba nga xamante lii di moratoire maanaam négocier gu ah, fi nekk ni bailleur yu dañoo bañ de kon de fi nekk ni Sénégal ñu ngi bëgg a ruux siiru mbaxuru di dina bu yees cey li Sénégal dalawti na nopp dalawti na de ma dina bu yees peq ci Sénégal cey fu ñu jëm nopp dalawti na ne observateur ko xëy woowee diine ne woon yónent la Alassane Bala donte faatu na sax ginnaaw faux prophète yooyu tribune yéen kaay ne loo ci mën di dégg de mooy Kolda am nañ xibaar xibaar a ngi nii de waaye Sénégal am xibaar kay wala diine ji am xibaar lii doy na waar mën a wees na waar dafa ëpp tool sax tribune yéen kaay ne lii ab sacrifice li ko du leen nag loolu ki nga xam nag moo di baay ba de ka sos di Alassane moom mii dafa nag bëggoon tabaski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 gën noo gàtt noo tawfeex ci sëriñ bi